jafe-jafe yu am jafe-jafe alimentation santé ak commercialisation fois mais maa ngi euh, saluer yenn initiative yu ñu jël fii nii ak yu ñu wax fii nii man gawma élevage man am sans pour autant culture fourragère bi ma ñëwee sama département loolu laa leen njëkk wax nañu jéem d' abord régler le problème de fourage gis naa fi initiative ñu ngi si est pas normal que ñeneen ñëw fii nii di ñu jaay lu ñuy jox suñu njur ñu am xale yoo xam ne mën nañu liggéey ah war nañu vraiment au contraire au lieu dem extérieur liggéey am na fi Sénégal problème d' organisation rek